c'est que moi, moi j'ai une question à poser. ci ta plateau bi. mooy est-ce que justice dina def lu dul dëgg. ci yoon non. donc la réponse est que. ci yoon le droit a été dit. bëgg nga ma tontu la. mais ñooy doxal bëgg na ma tontu ko. tontu ko tontu non parce que moom dafa laaj. xam nga yéenay laaj mais moom dafa ñëw di laaj. mais dama lay jox ci kaaw Ousmane sonk bi ñu ko fi barricadé pendant trois mois pratiquement fii kër est-ce que dañ ko tegoon ci yoon ci yoon xam nga teguñu ko ci benn yoon non loolu sa point de vue la non juriste yi seen bopp xam nañ ne teguñu ko ci yoon amul benn maanaam loo xam ne jaar na yoon ba ñu yeew mën a wax Adja bi tey mii dañuy ñëw tëj ko ci këram te yoon prononcé am amul benn sukkandikuwuñu ci benn maanaam euh, décision de justice pour tëj ko fa. alors ba tey justice yow xam nga yow waxoo a justice. xam xam nga da nga ndax justice dina def lu dul juste. waaw non wala dina xam nga. Hmm. barricade nit et différent d'un procès. d'accord mais il d'une décision de justice. Pa pa par non non pardon Adja. à cette dernière décision de la de la Cour suprême. parce que tu mel ne maître Babacar Ndiaye dafa génne jurisprudence Karim Wade. joxe montre montré ko exemple devant devant les de la. de la cour suprême fàttali leen ne leen euh, c'est vrai moom amoon na li nga xamante ne moom mooy bàyyi ndéganiku en en 2016 mais terewul dañu ko bàyyi mu mm-hmm. dem jël ay fiche u parrainage mais il sur la liste euh, électorale Karim Wade figure ba mu demee conseil constitutionnel après ñooñu les sages jël décision ne du bokk ci course bi parce que Karim sur la liste électorale et que Ousmane de la liste électorale comment tu ne peux pas être électeur yow manoo falu manoo fale ñu di la jox fiche parrainage dëgg bu baax. wóor na leen ne trois cent wóor na leen ne trois cent candidats yi dem ñoom am nañ casier judiciaire yu baax. non ba tey ñëwuma ci casier non waxuma casier judiciaire bi mais loolu est wala am nañu am nañu preuve ne ñu ngi ci bu ko bu parce que la requête elle est recevable. non dama ne su fekk xam nga DGE ñoo yore le fichier électoral loi bi dafa wax lu leer ku man ku amul carte électeur doo falu doo fale kon kii re kii récupérer euh, parenage pour falu la te yow doo fale doo falu parce que amoo carte électeur Karim Wade 2019 dafa am carte mu ngi inscrit na ci liste électorale bi déggoo fenn fuñ kenn retiré nañ ko ci. mais moom jotagul notification. kookal la monsieur Ousmane Sonko. mais lu tax jotagu ko te ñu xam nga du yow la ñuy indil notification bi mais lire nga ko ci presse bi ne ne notification baa ngi ni déposé nañ ko ci euh, euh, commissariat tel. xam nga Adja man dama bëgg bu fekkee. et même les autres man loolu dama ne li ñu wane li ñu wax vendredi na lii requête bi rejeté nañ ko ci loolu la ñu mën a commenté ba leneen ñëwaat nañu commenté ci loolu ñoom it fi ko teg <laughs> mais xam nañ ne fi ko teg ci yoon lañ ko teg. d'accord.